alors copain ñun fii dañoo am ay problème di problème ci wàllu feebar bi quoi parce que suñu mbuur bi daf ñu tere génne quoi fii ba benn semaine war ñu génne te boo génne tamit dafa war am motif bu bu bu leer boo xamante loolu moo tax moo war a ngay génne te soo génnee tamit waroo jox sa loxo kenn kenn waroo la jox loxoom te boo waxtaan ak nit da ngeen war am distance boo xamante war na mat un mètre daal. problèmes yooyu la ñu nekk ni quoi te boo génnee tamit sans justification police da lay jàpp mu jox amende cent et quelques euros cas boobu la ñu nekk di dund fii quoi franchement parler.